lu am solo muy al istiqaamatu te mooy sax ci ak njub day lu mat di fàttalee di ci soññ suñu bopp di ci soññente ndax li doomaadama yi gën a yittewoo te mooy texe te mooy mucc ci lépp loo xam ne lu la mën a tiitloo la wala lu la mën a jàqaloo ëllëg yowmal qiyaamati nga mucc ca loolu mooy li jullit yi di xëntawoo te loolu suñ boroom subhaanahu wa taala dañoo wax ne mënees na koo ame ci ak njub walla ak njub moo koy maye ndax mucc texe mu jëkk texe mooy li am solo te jullit yépp di ko wut suñ boroom wax ñu ne dangeen ko amee ci ak njub yàlla wax ne inna alladina qaalu rabbuna allahu thumma istaqaamu tatanazzalu alayhim almalaikatu an laa taxaafu wala taxzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tuadun ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla ba noppi sax ci ak njub bala ñoo faatu yàlla dana yabal ay malaaka yu leen di dalal di dalal seen xel ci ne bu leen ragal dara ci li ci seen kanam bu leen jàq ci li ngeen di bàyyi ginnaaw na ngeen bég ci àjjana ji nga xam ne moom la leen suñu boroom dël kon njub day musal nit ki waaye day tax aw xeet nekk ci ay xéewal nekk ci jàmm nekk ci naataange toloo la suñ boroom moo wax ne wa allaw istaqaamu ala tariqati la asqaynaahum maa an gadaqa kon di fàttali ak di soññ suñu bopp ci ak njub di fàttali wàccuwaay wi nga xam ne am na ko ak lii tax liy dimbali nit ki ci mu mën a sax ci ak njub loolu lu mat di fàttali la istiqaama te moo di njub buñ ko waxee rek mooy aw ci yoon wi suñu boroom subhanahu wa taala rëdd te mooy yoon wu jub bi te mooy diineem ji li mu ci digle ak limu ci tere nit ki di sàmmoonteeg loola bañ a jàdd càmmooñ bañ a jàdd ndeyjoor waaye it la muy def mu bañ caa teengal waaye bañ caa gàttañlu lu nekk rekk mu def ko nañ ko ko digale kon loolu bu ñu bëggoon koo tënk kon moo di ne rekk topp suñu borom subhanahu wa taala ci lu nëbbu ak lu feeñ waaye moytu ay tereem ci lu nëbb ak lu feeñ waaye boo ko doon tàqale man ngaa wax ne listiqaama mi ngi tàmbule ci nit ki gëm yàlla subhaanahu wa taala ngëm gu dëggu gëm melokaan yi nga xam ne moom la yàlla melal boppam nga di ko bàyyi xel waxtu wu nekk ndax suñ boroom ginnaaw bu bi mu saxalee ak amam ak desam fi da caa am ay melokaan yoo xam ne jullit bi waxtu wu nekk da ko war di teewal di ko bàyyi xel mooy suñ boroom kuy dégg la kuy gis la kuy xam lépp loo xam ne nit ki manga ca moo xam lu muy xalaat la moo xam lu muy jëf la moo xam lu muy wax la loole gëm ko bokk na ci lii li nga xam ne mooy njëlbeenu ak njub ginnaaw boo gëmee ba noppiit nga sax ci jaamu yàlla ci niko ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam diglee moom it bañ caa ëppal bañ caa yéesal ndax dañuy wax ne jëf ju baax jëf ju jub jëf ju rafet mooy joo xam ne ñaar yi daje nañ ca mooy nit ki bi mu koy def da koy sellal yàlla rekk tax waaye bu koy def it da koy defe nañu ko ko digale nañ ko santaane moo tax ñuy firi li suñu boroom di wax ne alladi xalaqa al mawta wal xayaatal li yabluwakum ayukum ahsanu amala suñ boroom dafa bind dund bind dee ngir nattu leen ana kan moo ciy gën a rafet la jëf ñu wax ne kon jëf ji rafet mooy ji nga xam ne mooy ji sell waaye mooy ji jub mooy ji nga xam ne ki koy def da caa sàmmonteeg niñ ko ko digale kon bokk na ci ak njubit mooy booy topp yàlla it nga jiital li suñu borom subhanahu wa taala jiital te mooy limu farataal ci yow nga jiital ko di ko bàyyi xel teg ci li nga xam ne ay naafila la di ay coobarewu yoo xam ne mooy sàmm faratay la cay manki moo koy mottali محمد رسول واشهد أن محمد رسول الله حي على السلام yoonu njub mooy li yàlla farataal nga góorgóorlu ca waaye li mu sunnaal it góor góorlu ca góor góorlu ci naafile yi nga xam ne ñooy mott li farata yooyu ndax suñu boroom moo wax ci xadisul qudsi ne sama jaam amul lu may jaamoo lu ma gënal li ma farataal ci moom maa taqarraba ilaya abdun bi abdi bi cheyin ahaba ilaya mimma waaye da caa teg na it bu dee bu ma dee bu ma dee jaamu ci ay naafila danay dana may jege di ma jege ba ma sopp ko te bu ma ko soppee maay doon ab déggam maay doon ab gisam maay doon loxoom ni mu ko waxee ci alxadiisul qudsi mu ne sama jaam dana ma jege lu di ma jaamu ci ay naafile ma ma bëgg ko bu ma ko bëggee nag maay doon loxoom maay doon tànkam maay doon bëtam maay doon noppam ca lu ma ma may ko ko lu muslu ci man ma musal ko ci listixaama kon doon lu rëy lool wàccuwaay suñu borom subhanahu wa taala soññee ci digle ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam it digle ko soññee ci ñu xoole jaam bi jullit bi saa buy julli mi ngi koy ñaanaale ci biir julli gi ndax ihdina siraatal mustaqima ci faati faatiha yi nga xam ne kuy julli di ko tare ay yoon kon loolu day tegtale rek ne lu am solo la li jullit bi war a xel di ko ñaan waaye di ci góorgóorlu te yonente bi sallallahu alayhi wa yàlla ci boppam da ko koo digal ne ko fastaqim kama umirta wa man taaba maak wala tadgaw innahu bi ma taamaluuna basir am na xadis boo xam ne sidna abubakar dafa mos laaj yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko yow de yaa ngi tàmbalee bi jaaw mu ne ko shayyabat nii huudun wa axawaatuha maanaam saaru huut moo ma bi jaawloo ak ay mbokkam mel ne alwaqia ak alxaqa ak yu mel am na saxaab yi bu ko gént gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waaw lu la bi jaawloo ndax tiitaange yi ci nekk ak tëkku yi nekk ak alak yi nga xam alakaande yi nga xam ne yàlla alak na ko xeet yi jiitu woon mu ne ko li yàlla wax ne fastaqim kama umirt kon loola day tegtale ne istiqaama lu mat di bàyyi xel la lu mat di góor góorlu la am na ku mos a laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wax ma ci lislaam wax joo xam ne duma ko laaj keneen ku dul yow mu ne ko qul amantu billahi su mustaqim waxal ne gëm naa yàlla te nga jub sax ci ak njub yonent bi sallallahu alayhi wa waxoon nañu ne istaqimu walan tuxsu na ngeen sax ci ak njub la ci yàlla yi defal ci ay tuyaaba du ngeen ko mën a lim du ngeen ko mën a takk kon nag góor góorlu ci ak njub di ko ñaan suñu boroom di ca góor góorlu lu jaadu la waaye it di ci bësanteeg sa bakkan di nootanteeg sa bakkan ndax nit ki bakkanam léeg-léeg moo koy wàcciloo moo koy jàddloo moo koy tax a sàggan ca la nga xam ne ca la war a sax te muy lañ ko digal kon waxtu wu nekk ngay bàyyi xel sa bakkan bañ koo topp loolu dana dimbali nit ki ci moo amuk jub waaye nag di xool ci nit ñu baax ñi di xool ci roy ci gaa yu baax yi roy ci ñi àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi roy ci sëriñ bi ak mag ñi nga xam ne ñoom la yaroon nga xam ne seenug dund lépp dañ koo saxoon ci ak njub loola lu mat di fàttaliku la lu mag di waxtaane la ngir ñu mën leen di roy ak di tànn ñi ngay àndal xool bu baax ndax àndandoo it dafa mën a jeexital ci nit ci bu dee ku jub la kuy ànd ak moom mën ngaa jub waaye nag kuy ànd ak ku jubati it boo sàgganee tuuti rek mën na laa yóbbaale ci njubati listixaama nag ku xool njàngalim sëriñ bi akub yaram dangay xam ne moom la jiitaloon daan ci soññee lool ci ay mbindam waaye it ku gis ab yaram xam ne ñim yar ñëpp ci ak njub la leen yar mooy di yàlla di moytu ay jëfe ay ndigalam di moytu ay tereem bañ a ëppal bañ yéesal te moo waxoon ne wala takun mufarritan aw mufrita bal fi sunnatin wa aqsita bul ëppal bul sàggan na nga sax dàkk ci ak njub jaar ci sunna si yonente bi sallallahu alayhi te maandu waxoon na ne karaama li yaatu yaatu li muy bari bari karaama gën a gën a kawe mooy ak njub kon ak mbaax ak karaama nee na dayoo ba moo di njub fa axbaru bi ann al istiqaama nihaayatu salaaxi wal karaama boo demee ci ay mbindam ci majmuwa bi fu baree bari mu ngi leeral siraat as siraatul mustaqim di wax ne siraatul mustaqim boobu bëgg xam mooy jaar ci sax ci lislaam ak liimaan ak lixsaan di bàyyi xel yi nga xam ne mooy yi war ak yi ñu sopp ak yi daggante baax ak xam-xam bu am njariñ jëf ju baax ak teggiin yu ñu gërëm ak jikko yu rafet ak mbañu rus te jëf lu jëf li nga xam ne dafa war ak yi ñu sopp ak yi daggan ca baax day ñod di nit ki di ko jëmale ci istiqaama loolu moo ko wax ci majmuwa bokk na ci melokaan yi nga xam ne day yóbbu murit bi di ko jegal suñu borom subhanahu wa taala mooy moom it jub bañ a ëppal bañ a yéesal ba muy lim jikko yooyee wax ne wal xaamisul amalu bil iqsaati bi tarki tafritin ma ifraati kon ak njub lu am solo la lu mat di góor loolu di bàyyi di ko bàyyi xel waxtu nekk xool li la yàlla digal sa digganteeg moom waaye lim la digal sa digganteek sa njaboot lim la digal sa digganteeg say dëkkandoo foo nekk rek bàyyi xel njub googu yàlla na ko yàlla defal ñu saxal ci ak njub xutba bi nga xam ne moom la imaam war a xutba léegi mu tàmbulee ko ci sant yàlla suñu boroom subhanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne yéen nit ñi ki am xel mooy ki nga xam ne li ko yitteel mooy li boroomam bëgg li boroomam namm moom lay jiital ci bëgg-bëggi boppam ak nammeeli boppam ki am xel mooy ki nga xam ne dafa sax ci topp yàlla waaye taqoo li nga xam ne moom la ko moom la suñ boroom dénkaane dénk ko jaamam yëpp te mooy ragal yàlla wa laqad wassayna alladina utul kitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaqullah kon na ngeen jël ak ragal yàlla def ko mu yoon wi ngeen di jaar def ko muy li ngeen di yaxantoo na ngeen di jëfal bis bi nga xam ne lépp lu waay def ci lu baax danañ ko ko teewalal ragal yàlla mooy yaxantukaayu ñi nar a texe ëllëg ñëpp ñi nga xam ne dañoo jege seen boroom la ëpp solo ca la ñuy wut mooy ragal yàlla googu nee na képp koo xam ne nag àdduna dox na digganteem ak ragal yàlla googe kookee day na xam ne mooy kii rëccu ëllëg képp koo xam ne dafa jiital bakkanam ci topp yàlla kooku it bokk na ci ñiy rëccu ëllëg kon nañ fexe ba suñuy bakkan ñu sàmm ko bañ koo bàyyi ci loxo yi saytaane ak bànneex ñi nga xam ne ñoom dañ koy jiital dañ koy tëj rek nañu tuub jëm ci suñu borom subhanahu wa taala bañ a toggoo genn mooy moo xam gu ndaw la moo xam gu mag la ndax kat lépp loo xam ne nit ki def na ko danañ ko ko bindal wa kullu cheyin faaluuhu fi zuburi wa kullu sagirin wa kabirin mustatar ci xutbam ñaareel bi ginnaaw bi muy sante yàlla seede ne amul benn buur bu dul yàlla dafa wax ne yéen jaam yàlla yi na ngeen góor góorlu ci dundal seen ëllëg nga xam ne faw mu ñëw te na ngeen jiital seen ëllëg ci tey ndax àdduna bii kat kenn du fi sax na ngeen jëflante ci ak maandu ak ku rafetal na ngeen mooy saytaane ak bànneex ndax seytaane da leen di woo jëme leen ci sawara seen bànneex moom da leen di ñoddi rekk jëme leen ci ak doyadi na ngeen bàyyi xel suñu boroom mi nga xam ne mi ngi foog mu ngi fuglu ñépp ñi koy topp ak ñi koy moy na ngeen taqoo ko ragal yàlla ni ko yàlla digale jaamam yi te dénk dénkaane ko yaa ayuha alladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslix lakum acmaalakum wa yaxfir lakum dunubakum wa man yutic allaha wa rasulahu faqad faaza fawzan azima kon ni ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu saxal ñu ci ak njub di ko ñaan mu yërëm ñu ci yaatu di ko ñaan mu bañ ñoo jàppee suñuy jëf te jëf jëflanteeg ñun ci yërmandeem yàlla yàlla ñu jéggal te yërëm nu yërëm mbooleem jullit yi yàlla suñu borom ñu ngi lay ñaan nga sàmm suñu kilifa gi Cheikh Mouhamadou Mountakha te yàggal ko fii defal ko ku ak mbooleem njabootu sëriñ bi ak mbooleem jullit ñi nga xam ne dañuy sax ci lu baax wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.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 أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام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 أما بعد فيا أيها الناس إن العاقل من اشتغل بمراد الله عن مراده واعتكف دائما على طاعة مولاه والتزم الوصية التي وصى بها جميع عباده فقال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتخذوا التقوى مسلكا ومتجرا وعملا ليوم تجد فيه كل نفس ما عملت من خير مهدرا فتقوى الله متجر الفائزين وغاية من المقربين ولقد خاب من شغلته عن ذلك دنياه وآثر على طاعة ربه طاعة نفسه وهواه فعلينا أن نكف نفوسنا التي بأيدي الشيطان والهوى أسيرة وأن نتوب إلى الله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 الحمد لله الذي أوضح معالم الدين ومنح هداية أصفيائه للمتقين وأشرق في قلوب من شاء من عباده أنوار اليقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 لا سبيل إلى إلى دوام استيطانها واسلكوا فيما بينكم سبيل العدل والإحسان وخالفوا الشيطان والهوى فالشيطان يدعو للسعير والهوى يجر للهوان وراقبوا الرقيب على من أطاع من عباده وعصى ولازموا التقوى كما أمر الله به عباده وأوصاه قال تعالى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 yaxfirullahu lana wa lakum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 سمع الله لمن ربنا ولك الحمد الله أكبر الله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 illaa man tawalla wa kafara fa yu'adhibuhu llaahu al-'adhaaba al-akbar inna ilaynaa iyaabahum thumma inna 'alaynaa hisaabahum allaahu akbar allaahu akbar sami'a llaahu liman hamidah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 asalaamaaleykum. asalaamaaleykum.